Fatim Diop Daba combat. buur na ci diggante Albarka Kayre ak Mathia Perera Albarka Kayre moo gi ginnaaw. Albarka Kayre Mathia Perera Fatim ñaari xale yi daje nañu. daje nañu dara amul. xanaa loolu mooy njaabu ko. eh xeex ba Fatim cooki ba ngay jolli Fatim cooki ba ngay jolli Fatim. Mathia Perera xeex bi baaxul. cooki ba nga sigil sox laaw. Eh. Oh day mimé daf ko bëgg Daara Fatim daje nañu door ba daanu daanu daanu da ngay dem ah gërëyeel la Fatim. Fatim ay gërëyee lañu d' accord nañu da baax. ay ca albarka Kayra match prêt. ñaari mbër manca perera bu waalo albarka xëy na koy génne géew bi dafa bëgg combat bi dafa puus na ko mu génn puus na ko puus na ko puus na ko mu génn puus ko mu génn wallahi mbay ñi nga fi bayyi won ñi dootuma wax ci ñu wallahi mbay ñi nga fi bayyi won لا إله إلا الله البركة كايرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله البركة مو وردومبا البركة دانا albarka daan na ma ceperera